dasi tay ñu wara def tar Cheikh Tidiane radiallahu anhu way ñu sukkandiku ci téere bi ñi wax mu niyatul murid bi nga xamne ne ibnu baaba moom moko talif ñu yamon ci ñan ñu jur Cheikh Tidiane radiallahu anhu waxon nañ ne yaay mu ngi tuddu aisha baay mu ngi tuddu Muhammad bi ma amee juróom ñaari at si la mokal alquran bi mokale alquran mu jang sharia ba wëttu sharia lepp am téere sharia yoo xam ne ni sax daf ko mokal mu commencé nag di lire téere yi téere góor yàlla yi di gis seen wax yi waaye dëgg-dëgg wax ci du ko mën a dégg bu baax dana xam baat yi li muy firi waaye xatan wax ji dafay des si moom mu jógee fa nag pour laxas dem sàkku ñu xam-xam ba mun nga xam ne mooy xam-xamu tasawuf biñ jógee ñu ne boobu am na ñaar fukki at ak benn waaye laata mi génn fekk na amoon na soxna waaye soxna bu noonu daf ko fase ñii ne def naa ak moom benn xat ñii ne am naa ak moom doom ñii ne xamut moom doom am na ay ixtilaafaat ndax moom siiraam dafa bari ay wuute ba tey tamit papaam ak yaayam ñoo genn ndor benn jour ñoo genn ndor haduna si benn jour ñoom ñaar ñëpp ñu suul leen si benn place wax nañ ne am nañ seen benn doom boo xam ne ñu ko suul si place boobu noonu si aynul maadi waaye duhul ne cheikh tidiane rek la papa ak yaayam jur waaye am na ay mag am na ay rakk ñoo xam ne ay góor lañ ay jigéen lañ waaye magam ñeeg rakkam yépp dañoo génn haduna njàkk seen papa di gaañu bam dess ñaari nit saydu muhammad ak saydatu a saydatu roqiya saydu muhammad mom lañuy dakantale ibnu omar saydu roqiya nak mom mo magon cheikh tidiane radiallahu anhu waaye momit muju na genn hadna ñu sul ko aynul mali ñak cheikh tidiane radiallahu anhu di genn hadna bim tago jabaram bom nak lu tago lu tax mu tago mom moy gis na ne dafa laxas fi nekk pour jangi te deug deug mënut ko fa téye xamul kañ lay ñëw mu ngi jóg dem di sàkku ji loo xam ne xamagul kañ la koy xam mu bañ a yoreel jabar ji xàq moo tax mu ci ko waaye du dara bi mu fa jógee nag dugg na si góor yàlla yi pour sàkku xam-xam boobu noonu nga xam ne moom la doon sàkku moom la Ibnu Ba Ibnu Baaba wax ne su ma irtaala himmatu haale ilal tibaa saadatul suufiya fajara fi talab ahli la hadatu kullu abidin awaw wa umruhu ihda wa isrin sanna lillahi daru umhi ma ahsana lim wax non moy li nga xamne mom firi won dar sa bele passé kon legi jël na ay ñu mali jox na ngir dem pour sa ko xam xamu tasawuf taw waxon nañ nit ñi wax nañ si lu bari waaye daal ki njëkk a tuddee tasawuf mooy abo xaasim abo xaasim tasawuf lañ njëkk a ak tasawuf nit ñi wuute nañ si baat bi fi mu jógee kenn ku nekk lu wax ñii wax lële ñu mu wax lële kenn ku nekk am na lu wax waaye Baay Ñas radiyallaahu anhu daf ne tasawuf duur mooy ngay sol yëre yu xoteeku wala ngay bàyyi sa kawar gi walla ngay dof doflu mu ne waaye loolu noonu mbiru xol la waaye du mbiru yëre léegi génn na ngir sàkku ji xam-xam boobu mu ne fa jaala min jumlatin ataahu min awaahi xasrihi min awliyaay xasrihi awaahu saydi tayib xalifatul fadili wa farisil ilbatil ahmada saqali wa xayraha zaynaka min ahlil matni ka zayli muhammadu natlil hasan wa huwa allazi qaala li haza alkamal la tudriku la budda maqamal saasali bim génnee xayrul madi jëm fas ñu ne kum ñaka dajel moy say saydu tay mu ne fa kullu man mu ne fa kaane nek na man képp ko xam jumlatan man ñoo ni dikkal nañ ko min awliya hasri si wali jamonom al awaw ki nga xam ne delu dellu wali wëli yu jamonoom yépp dikk nañ jaayanteeg Cheikh Tidiane radhiyallahu waaye bi mu génnee dem ki njëkk a mooy Seydi Mouhamad Tayib kooku la Cheikh Tidiane njëkk a dajeel bi moom ñii ne jox na ko tariqa ñii ne joxul ko tariqa ñii ne bi ko joxee tariqa wirda na ko ñii ne wirduwul ko waaye li gën a wér mooy joxul ko tariqa bi mu fa jógee mu ne kooku nag mooy wa faarisul xelbati ak lefam takkaay mi al ahmad ahmad asaqali ahmad saqali mu ne bi fa jógee tamit daje naa ku ñuy wax Ahmad Sakhalin Seydi Mouhamad Sakhalin ko tamit ñii ne jox na Cheikh Tidiane wirde ñii ne joxul ko ko bi mu fa jógee mu ne waqay rahasayni ak yeneen ñaar yu dul lii min ahlil matni si ñooñ càkkutéef yi mu ne ko Seydi Mouhamad Najdel Hasan ku mel ni Mouhamad Hasan Alwanjali Mouhamad ak Mouhamad Alwanjali bim gisé Cheikh Tidiane mo mo wax Cheikh Tidiane ba la budda an tudraka maqam al sasali muné ko maqam imaas imam saasali faw nga jot ko maqam maqaamam imam saasali mooy maqaama bi gëna reuy ci si maqaamaam si jamono jamonoom mu dakantale ko nako ko bu ba faw dang ko jot muné ko waaye nak fi nga ñëw nii munoo fi xamé fatu faw da ngay wat sa sahara ba nga programme wat benen yoon si ngay door a mun a am fatu si la cheikh tidiane wat si sahra ba pour jëfe li nga xam ne nii moom la ko xasan alwan jali wax ndax ko wilayam kenn du si lum la wax rek li si des mooy jëfee ko rek si la génn faas jëm foofu noonu waykat bi wa baxda za rajaa lil sahra suma ata madinatul jidaar mu ne wa baax des saa gannaaw loolu nag mooy bi ko <clears throat> xasan waxee na ko fii munoo fee xamee fatxu lu dul nga dem si saxraa bi mu ne rajaxa la dellu lil saxraa dellu si saxraa ba su ma ataa topp mu dikk madinatul jidaar dëkk bi ñuy wax madinatul jidaar mooy tilim saam rek bi mu dikkee foofu mu ne wa darasa jàngale na tafsir tafsir wal xen mu ak xam-xam wa jadda mu farlu fi xarxil baabil maliki si fëgg buntab buur bi al mawla ki nga xam ne nii mooy buur assamadu ki nga xam ne nii moom lañ jublu mu ne faxtaasa làq na maxtaasa lum làq min ibaadati si jaamu yàllaam wa azama tam dogu wa zammara tam wagu wa ifaadahi tam jëriñu fa barkat mu ne melxati na ba waariqul fatxi melxat yu béeku xale yi si moom Seex Tijaan wa sa'arat mu feeñ ay xarbaax al izzat ya daange la dayi si moom mu ne fa kaana nekk na yuftinu da fitnaal man képp ko nga xam ne raaw gis na seex tijaan li husni yi ngir taaram jëmi man raaw képp koo xam ni gis na ko bim jógee si sahara bi bim demee si xasan al gon mu ne ko faw nga jot imam saasali waaye mënoo ko xamee fii nii da ngay delluwaat si sahra bi si la delluwaat si sahra bi dem foofu madinatul jidaar wala tilimsaan di jàngale foofu xam-xam di jàngale tafsir fekk dafa am benn guur bu nekk foofu tabax fa benn madrasa bu mak ñi ne mooy e, madrasa yi gën a mag bokk na si bim dikkee na buur bi jël ko mi jàngale bim demee ba si kanam buur bi bëgg mu jiite école bi mu bind leetar jox cheikh tidiane radilan pour ne ko dama bëgg nga jité école bi ndax biñ fi ñëwé gis na né nit ñëpp dañoo nekkoon si sàggante waaye ñëpp waat nañ ñu doon jàng xamuñ sax commencé nañoo xam ñu xamoon gën nañoo xam mu jël ko bëgg ko tax si boppam bi ko bindee lettre bi nag cheikh tidiane dafa jël lettre bi dugal ko si poosam fekk ñu ko bind lettre bi tàkkusaan mu jàng lettre bi gis lu buur bi bind mu bàyyi ba fajar rek mu daw génn dëkk ba tàggoowul mu ne ndax waa ji daf ko bëgg a tënk ndax daf ko bëgg teg ci madrasa bi mu nekk di jàng ak te moom li ko tax a jox bokkut ci loolu ci la daw génn dëkk ba ba bi muy génn sax tàgguwul buur bi mu ne suma sama foofu nag la jógee pour waaj pour dem màkka xaj yi waaye xaj bi duwul ne dafa jog direct rek dem ba màkka waaye def na ñii ne def na benn xat ñii ne def na ñaari xat si si yoon wi ñu ne bi muy dem màkka boobu mu ngi am fanweeri xat ak fanweeri xat ak ñett wala fanweeri xat ak juróom-benn moo tax ibnu ba ne suma sama topp mu yëkkatiku bi xas mi si dogoom nga alxawiyu bay aju dëgër dogu ak yitte moom Cheikh Tidiane xam na ko moo tax bi ñuy yëbbi sax da ngay dégg ñu ne yaaximata Cheikhul Oxdari mooy ci yittee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu buñ ne bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu ne si barke yonentu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye buñ ne bi xormati Cheikh Ibrahima Niass ñu ne si xormaal kon kenn ku nekk xam na maqaama buñ la joxe buñ ne himma ñu ne la ñu ne jaa ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa ñu ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ne si la jógee nag li xaj ji ngir dem def xaj maa siyaari nabi ànd ak siyaari yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kon dafa boole ñaar dafa def xaj ba pare dem siyaari yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wala dafa def xaj ba pare boole ko ak humra mu ne fa min tilimsaan si tilimsaan wala nga ne irtaala laxas na min tilimsaan jógee tilimsaan ilal baytil ajili jëm si dëkk bi nga xam ne nii mooy màgg mooy makkatal mukarram sannatan sihat sitta wa samaaniin juroom ñett fukki xat ak juroom benn waaye lu nam si lool mooy junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ndax waxoon nañ la junne ak téeméer ak juróom fukk si la juddu kon bu demee màkk si junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn mooy kon bi muy dem màkk mu ngi xam mu ngi xam fanweeri xat ak ñett waaye wax nañ la du dafa def direct dem màkka waaye wàcc na dëkk bi ñuy wax Tunus mooy Tunisie moo tax mu ne la wàcc na Tunusa Tunus wa suusata ak suusa suusa benn dëkk la si Tunus rek sannatan si xat bi mu wàccee foofu def na fa xat fa ay xasa mu yee alxulooba xol yi si sinni saj mi yi ñu ngi nekkoon si kaso nga mentu gis nga bi mu nekkee jidaar mooy tilim saan fekk na nit ñëpp sàggan mu réglé leen ba ñëpp teguwaat si yoon mu bàyyi leen fa dem Tunis bi mu demee tamit lam fekkoon madinatul jidaar la fekkaa Tunis mu yeewaat xol yëpp xol yëpp teguwaat si yoon mu diire fa xat di jàngale si jaamiu saytoon nga xam ne bokk na si jaamia yu njëkk si àdduna moo bu xaayira bi bokk na tamit si jaamia yi gën a siiw si àdduna bi Cheikh Tidiane jàngale na fa xam-xam xam-xamu sharia naxu sarfu balaaxa ak tafsir ak xam-xam yooyu nag jàngale na ko mune wakane wakkaane fitunus na fi tuunusa si tuunus isaaka boobu len waliyun wali jamon mom non Cheikh Tidiane di jangale tunus nak amna ben wali bo xamne mom ne moom mu nekkoon tuunus gars yi noonu basara begal na sayxunaa suñu sëriñ bi hubbi yi mbegelam al hali bi nga xamne ni mom moy aji kawe koku dafa dem mu ngi yor ñent rek ñom ñokoy gis mom kenn du ko gis jëflante na ak Cheikh Tidiane sax waaye Cheikh Tidiane gisul ko bi mu dikkee Cheikh Tidiane dafa waxat benn taalibeem te taalibe yooyu sax dañ leen a tënk ñaari jour rek lañ koy gis wala ñaari guddi mooy guddi al guddi aljuma ak guddi altine ñaar yooyu si la ñuy gis xutbu bi ñeenti ñooñu nag ñetti ñëpp téere tarixa bi indeegul seen tur lu dul kenn la si indi mooy Abdou Samad Rawaahi xam nga dat bi Cheikh Tidiane juddu. téere yi indiwuñ ko woon yu njëkk yi waaye yu mujj yi commencé nañ ko indi ndax seen gëstu tànn na benn muxaddam baay bu nekk Nigéria mu ne dafa tudd dafa tëdd gént Cheikh Tidiane mu laaj ko ne ko ban dat nga judd xam nga xam nañ weer wi ñu ne weeru weeru safar la ñu ne bis bi bisu alxames la ndax Cheikh Tidiane léppam alxames la alxames la judd alxames la xam maqaamam katmiya xatmiya alxames tamit si la génn àdduna comme ni nga xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisam altine la si la judd si la rañaan si la génn àdduna léppam altine la comme ni nga xam ne nii aadama alayhi salaam bisam ajjuma la ajjuma lañ ko bind si lañ ko dugal altine si lañ ko génne si la takk jabar lim def yépp si jour ajjuma la ko def cheikh tidiane tamit bisam alxames la ko laajee mu ne ko fukki fan ak ñett si weeru safar kon ko dafa gën Cheikh Tidiane mu wax ko dat bi mu judd waaye avant loolu nit ñi xamuñu woon ban dat la judd léegi nag nit ñi gëstu nañ ba commencé di bind dat bi lu tax ñu bind ko Cheikh Tidiane moom moo ñaanoon ne yàlla na dund juróom ñett fukki at léegi nag ñu calcul jour bi mu juddoo ba jour bi mu ñu def ko mu nekk juróom ñett fukki at si lañ door a mën a xam ban dat si la judd waaye daal xam sama rawaahi bi moom la Cheikh Tidiane di waxal mi waxal xutbu boobu noonu nga xam ne moo nekk Tunis di wax ak moom di wax ak moom ba jour Cheikh Tidiane wax ko ne ko waxal ma waliyu bi ne ko dama bëgg a tukki dem Màkka waaye nag damay jaar Maxrib mooy damay jaar e, damay jaar Maxrib damay jaar Égypte mu ne dafay jaar Égypte mu ne ko nag te damay dugg ci gaal bi wala bato ma bëgg nga ñaanal ma waaye Cheikh Tidiane laata mu koy ñaan loolu daf ko jox addiya dafa jël wurus jox ko taalibe bi na ko joxal ma ko sëriñ bi na ko mu ñaanal ma kon nga xam ne loxo neen bi ñaan bi mu ko ko joxee sëriñ bi na ko kuñ bëgg joxe na luñ bëgg ndax Cheikh Tidiane ñépp ko bëgg waaye wurus tamit ñépp a ko bëgg mu ne ko wax kon ne ko garanti naa ko demam ak dikkam xam nga Cheikh Tidiane daf ko wax ñaanal ma damay dem mu ne ko naa sa dem ak sa ñëw zahaban wa bi mu fa nag si la war a jaar euh, si la war a jaar Égypte foo ni dina fa fekk beneen waliyu yàlla moo tax mu ne kaza ne ko noonu basaroo bégal na ko bisa si loolu al waliyu waliyu Seydou Mouhamad Kurdi ki ñuy wax Seydou Mouhamad Kurdi Mouhamad Kurdi moom moom moo nekk Égypte Cheikh Tidiane dem na ci moom waaye njàkk loolu Cheikh Tidiane dafa gént bi mu nekkee Tuunus si wàllu yu dafa toog gént mu ne raaytuka wa ana bi Tuunus yaxni fi aalami nawmi fa qulta laka inni nuaasun laka zaati fa qulta lii huwa kaza huwa kazalika wa ana uqabilu nuaasaka sahaban Cheikh Tidiane mu ne dafa toog Tuunus mu gént Mouhamad Kurdi bi mu géntee Kurdi mu ne moom jëmmam ji yëpp përëm la Mouhamad Kurdi na ko sa jëmm ji përëm bi yëpp danaa ko soppi mu nekk wurus bi mu dikkee mu nettali ko Mouhamad Kurdi Mouhamad Kurdi ne ko ni ko géntee noonu lay demee moo tax bi mu dikkee dafa def diir bu yàgg dafa ñetti fan ñeenti fan Mouhamad Kurdi laaj ko ne ko maamat la bu ka mooy lan mooy sa càkkutéef mu ne ko maqaamatul xutbaaniyatul osman laay sàkku mu ne ko yow xam nga lu ëpp loolu mu ngi mel ni bi muy ñëw seratu mbaam la mu ne ko looy sàkku mu ne ko pour oto yóbbu ma mu ne ko xam nga lu ëpp loolu waaye avion moo ko yóbbu kon li mu doon sàkku am na lu ëpp loolu maqaamaam qurbaan ya nag dañ ne waxtu wu nekk kenn lay nekk laa yakunu fi kulli asrin illa wahidun xalifatu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam li xifsil alami bi niyaabati xanhu ñu ne mooy koo xam ne nii mooy wuutu yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam waaye moom la yàlla di dénk xaalam bi lép si loxoom lay nekk am na ñoo xam ne nag ñi ngi weddi xutbaan ya waaye ñu bëri saxal nañ ko seen téere yi ku mel ni ibnu hajar saxal na xutbaan ya si fatwaa yi nga xam ne ni mu ngoy def comme ni mu saxalee ab ku mel ni timin imam suyóoti saxal na xutbaan ya comme ni mu saxalee awtaat ak ab ak ñeneen ñoo xam ne nii duhul ñoom ku mel ni ibnu xaluut ko timin saxal na xutbaan ya waaye daal maqaama la boo xam ne ñëpp nangu nañ ko ñu koy dàq dañ ne ñoom xamuñ ko woon jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye bu fekkee liñ xamutoon jamono yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam jamono bi kon li ñuy xam jamono bi dana bëri ndax toog si jàkka di naafila weeru koor loolu moo ko indi amutoon jamono yonent bi waaye jamono yonent bi kenn ku nekk sa kër ngay toog naafila ba tey tamit alquran jamono gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi si lañ ko door a dajale te baatal xutbu boobu mënut feeñ ndax boobu saaba yi mun fi woon ndax Cheikh Tidiane laaj nañ ko ne ko yow ak saaba yi ñan ñoo gën mu ne saaba yi ñoom ñoo ma gën te Cheikh Tidiane kenn weerantuwul aw xutbaaniyaan ba tay tamit tasawuf jamono yonent mu nuñ wax baat bi duñ ko tuddee tasawu waaye li ahlul tasawu di jëfee boobu saaba yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi doon ko jëfandikoo ndax a Hurayrata jiite woon na mbooloo moo xam ne si jàkk yonent lañ nekk di jàng mokkal aay di wirde di def lu nekk ba benn bis fekk na nit ñi si mbooloo mi si si marché bi mu ne leen yéen ñu ngi miraas yonentu ngeen toog fii nii di weerante ñoom ñu daw dem sa jàkka yaakaar ne yonentu xaalis dañ koy miraase waaye buñ dikkee gisuñ lu dul ñuy jàng alquran ñii di sikkar ñii di fexe mokkal alquran ñu delluwaat ne ko mu ne gis ngeen miraas bi ñu ne ko ñun jàkka ja gisuñ fa dara waaye daal ñu fa toog di jàng alquran ak wirde ak genre rek lañ fa gis mu ne leen loolu mooy miraas yonentu sallallahu alayhi wa yonent ci xam-xam lañ koy donnoo waaye bi duñ ko donnoo si xalam moo tax kon ñiy dàq ma ay xutboob tasawuf ak yooyu yëpp euh, gàtt xam-xam ak timin mën a wedd rek moom moo leen si dugal mu ne wa huwa moom allazi mooy nga xam ne xaala wax na lahoo ñeel Seexu Tijaan lakka ñaal na la ajalam lu màgg mooy li ngay sàkku ni danga xam lu ko xëpp mu ne man lazi ñeel ki nga xam ne lil xut bi na xut bi man lahoo ñeel na ko awaawu delu akoon bim mu ci si Kurdi ba nga xam ne lim doon saku dafa jógee nak wara dem makka waye bim mu bim bi dafa def direct makka fofu mom amul taxaw nga gis na bu demee ba makka ci nit dana fa fekkat benen khutbu bo ne bu mag la Muhammad abdullah Abdullahi Indiwi moo Ibnu Babane. ne wajaa dikk na alkaxbatu kaxba ga ci sawaalin si weeru sawaal mooy xori si la jógee Égypte nag war a dem màkkatal mu karam ci sannaten si at sabxa juróom-ñaar si atan juróom-ñaar waaye lu namm si atan juróom-ñaar mooy junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar kon bi muy départ mu ngi départ junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn waaye mu ngi yegg junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar kon def na xat si yoon wi doona matta waqafin si loo xam ne nii duhul taxaw mu ne wakkaane nekk na isaaka foofu leen sa màkka minal kibaarin koo xam ne nii si mag ñi la bokk moom tamit wax nañ ne xutbu la mu si moom biaa nekk ni si moom wakkaane nekk na kooku saa yi di borom mbóot bi mu demee foofu noonu Abdoulaye Ndiy la fa fekk Mouhamad Abdoulaye Ndiy xutbu la waaye booy bàyyi xel ñi Seex Tijaan romb yëpp ñu naan la xutbu la amul si kenn koo xam ne nit ñi dañ koy gis dafay tëju rek wala boo xam koy gis benn nit lay wala ñaar kii benn taala bi la xamoon moom moo daan ko gis waaye kële dafa tënkoon jour yi waaye kii nag tënkoon jour yi waxtu mu nekk taala bi mun na ko gis bi mu dikkee mu bëgg a gis sëriñ bi mu ne ko sëriñ bi de mënoo koo gis Cheikh Tidiane bind jox taalibe bi mu jox ñoom ñaar si bind lañ waxante ba mu Mouhamad Abdoulaye ngi xamal Cheikh Tidiane ne ko yow yaa may donn maqaama bi nekk si man yow yaa koy donn waaye nag danaa génn àdduna suñ jullee tabaski ba xam ñaar fukki ñaar fukki fan fekk boobu Cheikh tijaan mu ngi màkka bi mu waxee loolu Cheikh Tidiane nag taalibe bi xaw a mer ne ko yow def naa si sa buntu ne bi fukki at ak juróom-ñett kii jógee fi ñëw tay rek nga naan ko moom moo lay doon